asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur sa sant yéen ñi safoo ak di neexoo di seetaan seen télévision Thiès 24. tey jii ñu ngi fii tey ji ak Mouhamed Keita di war a waxtaanee wàllum religion képp ko xam ku wax wàllum religion wax tey jii ci gàmmu Ndiassane bi moom mi nekk ci wàllum organisation bi sëñ bi na nga def. waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi lay fay soxna si di wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyati abdaani wa shifaiha wa nurul absaari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman maa ngi leen di nuyu di leen dalal seen kër fii si Ndiassane sëñ bi ñu bëggoon la laaj rek maanaam lan moo waraloon sañcu Cheikh Bou Kounta ba mu lan moo ko lan moo ko waraloon pas-pasam ba mu sañc lii di Ndiassane waaw xam nga rek Kunta dafa baaxoo ci li nga xamante ne moom mooy euh, décentralisation te ñoom dafa am si lu ñuy yëngu mooy euh, jàngale alxuraan ak dundal diine ji topp yàlla ragal yàlla waaye nag yaatal li nga xamante ne moom mooy diine lislaam Cheikh Mouhamadul Kunti yu nag mii di borom Ndiassane way juram moom mooy Cheikh Aminaamatul Kunti yu muy judd en 1780 waaye moom cosaanam mooy aqib li fële ca Adrar en Algérie donc waaye dañoo doon ay nit ñi nga xamante ne li seen baay yi ak seen maam yi doon def ñoom tamit ba ñu ñëwee ci loolu lañu nekkoon ndax ñoom tamit dañoo yaataloon diine ji jugee ak Kibli fële ci Adrar doxe ba fi nga xamante ne mooy Mauritanie jaar Sénégal ñëw ngir liggéeyal seen maam rasulullahi sallallahu alayhi wa moom Cheikh bu Mouhamadul Kunti yu nag mu ngi juddu en 1840 euh, waaye baayam Cheikh Abi Naamatul Kunti yu moom gisul baayam ndax moom Cheikh Bounama laataa muy génn duniyaa dafa woo ki nga xamante ne moom mooy euh, doomam ja Cheikh al ne ko fii ci ab diir di nga am ay gan waaye nag sa yaay ja maam Coro juuf bu doom ja ñëwee nag ma ko tuddee man Cheikh Abi Naamatul Kunti ndax dina def ab diir rek waaye du yàgg ci àddina waaye sa yaay ja maam ma Koddu Diop moom mi nga xamante ne mooy woyjuru Cheikh Mouhamadul Kounti yi bu doom da ñëwee na mu ko tuddee sama mag ji di Cheikh Abdou Mouhamadul Kounti ndax dafa amoon Cheikh bu naam dafa amoon magam boo xamante ne kooku moo ñëwoon di ko jël si pour delloo ko fële nga xamante ne moom mooy ca cosaan la waaye mujjul euh, mujjul fekkee loolu ndax dafa mujj génn àddina donc Cheikh bi naamatul Kounti yi jël ko mujj ko denc foofu noonu ca ndànkanaar moo tax ba Cheikh Mouhamadul Kounti yi juddoo ñu tuddee ko ki nga xamante ne moom mooy euh, frère bañ ci jógee ci maam Cheikh Abdou Nahmatul Kunti ba mu génnee àddina ci la ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Mouhamadul Kunti yu nekk foofu magam ja yar ko muy Cheikh Albé Kaytaw moom Cheikh Albé Kaytaw ginnaaw bu nga ko waaye maam Cheikh Cheikh Abdou Mouhamadul Kunti ba muy wax Cheikh Albé Kaytaw ko waxoon ne sama doom jooju di Cheikh Mouhamadul Kunti yu bu juddoo bu leen ko sonal ci jàng baa ci leneen ndax lépp dina ko fekk ndax noonu la alwaladu si roi bi loolu la arab wa doom ja nag mooy donn baayam te loolu gis nañ ko si Cheikh Mouhamadul Kunti yu si la ñëw en 1883 ci la sànc Ndiassane waaye balaa moo sànc Ndiassane dafa ànd ak ay taalibe ku si mel ni ñoom Cheikh Ansou Thiam ñoom Jaafara Dramé ak ñeneen ak ñeneen waaye ba mu ñëwee dafa ne lenn lay njëkk a def mooy wut dëkkandoo dëkkandoo googu nag ba mu koy wut wutul kenn doyu kenn doyu ko ku dul yàlla suñu borom ndax ñoom ay tas ay ay lañ yënguwuñu si dara dul tasawuf te ñett lañ doon dund mooy taxal li li ak li donc loolu mooy ñoom dunduwuñu lu dul tarixatan naa mabniyatul alal kitaabi wa sunna dunduwuñu woon lu dul li Cheikh Abdul Qadir Jeylaani seen maam waxoon ci tarixa bi mooy euh, tarixa bii nii lenn dundalu ko lu dul alquranul karim ak li nga xamante ne moom mooy sunna donc maam Cheikh Mouhamadul Kounti ba mu ñëwee à bas âge dem na Mauritanie yàggu fa nag donte doon na suivre pas yi pour dem a gëstu waaye xam na ne lépp mu ngi ci moom te mag ñi tamit nangul nañu lu mu lu mu yoroon mu jóge foofu noonu jóge foofu noonu ñëw Sénégal di continuer li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla ba keroog muy sanc Ndiassane en 1883 noonu ba mu ko sancee teewul mu ngi woon nekk ci agriculture ak ci commerce liggéey di liggéeyal yàlla ak moom ak ak njabootam ak ay taalibeem waaye teewul mu ngi nekk aussi di def li nga xamante ne moom mooy participer ci développement wu li nga xamante ne moom mooy ndax moom tamit daan na bokk si ñi nga xamante ne daan nañ lebal état sax ngir ñuy mën a dund wala daan leen lebal ngir ñuy mën a liggéey ci li nga xamante ne moom mooy avancement wu réew mi donc maam Cheikh Mouhamadul Kounti ci gàttal dafa toppandoo baayam bi nga xamante ne moom mooy Cheikh Abi Nahmatul Kounti mi nga xamante ne dafa jugee en 1700 80 la judd ñëw en 1800 sànc dëkk bële di ndànk naar nga xamante ne moom mooy capitalu tarixatul xaadiriya fii ci Sénégal ba mu ñëwee nag xëy na am na ñu ne am na ñu ne fekk na fi diine lislaam am na ñoo xamante ne nee nañ maam naa Bounama moo indi diine fii ci lislaam waaye nag ala xaal dañu koy nangul képp ne maam naa Bounama Kunti ba mu fiy ñëw dafa dox. 1700 boobu noonu taxul mu àgg ndànk de dafa dox ay dëkk yi dëkk fii ci senegal am ñu mu tuubal am ñu mu defar ba pare doog a dugg si biir ndànk ngir si si si la si la doog amee ki nga xamante ne moom mooy suñu sang boobu noonu di Cheikh Mouhamadul Kunti jërëjëf. nan la meloon ak mag ñi fi nekkoon naka nga gisee woon seen relation nan lañ doon doxalee. waaw loolu relation bu particulier parce que Cheikh Mouhamadul Kunti dafa yaataloon ñëpp. ba mu ñëwee nag bokk na ci mag ñi jamono jooju noonu ba muy tommenteel euh, ak euh, yeneen tarixa yi euh, yi fi yi fi ñëw dafa dafa dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne moo gënoon a mag mais ñoom tamit dañoo jëloon cër yëpp jox ko ko ndax daan nañ fi ñëw di kon nemmeeku dem na ba maam Moulay Abdou Aziz keroog suñu porte parole nga koy wax nee na boo ñëwoon Sénégal yonent bi rasulullahi sallallahu bu ñëwoon senegal di jéem a di di wut fu muy dal du dal feneen fu dul fële ca Njaasaan ndax Njaasaan mooy këram ndax ñoom ay sëtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc loolu relation boobu noonu la am ak tarixa yépp ubbeeku ba pare yaataloon buntam képp ku ñëw soxla dara ci moom mu faj ko waaye képp ku amoon dara lu la jaaxal nga ñëw ci moom mu di mu giddi la wal yoon bu baax bi kon moom moom daal dañuy wax jazakallahu xayran daal waaw naka nga gisee ne jàngu njaasaan yi mën na dimbali nit ñi gën a jege seen borom waaw xam nga loo gis rek dafay am modernisation bu njëkk dañ doon jàngee jàkka dañ doon nekk en cercle jàng ci li nga xamante ne ñuy taal benn taa jël ay matt teg ko ñu toog di jàng te xam nga tey ñu ngi nii léegi lumière yaa ngi fi nouvelle technologie yaa ngi fi xale yaa ngi jàng jaasaan nag ci li mu nekkoon démb jógewu fa ba tey ndax ñoo doon jàngale tey bu buñ bañ fi jógee seeni sët ñoo ngi fi seeni taalibe ñoo ngi fi di continuer di jàngale donc Njaasaan dafa am benn particularité bi mu yor mooy maanaam jàngaleem yemalewu ko rek ci jàng alxuraan pare ci déedéet waaye dañuy jàngale alxuraan ba pare di jàngale xam-xam maanaam yoon wi nga xamante ne mooy yoon tasawuf bi ñu nekk te di bokk te mu nekk yoon bu wóor donc ñoom njaasaan dañ see appuyé wu ci li nga xamante ne mooy yaatal parce que fii ku fi judd daanaka si sunu sunu sëriñ yi fi nekkoon ñoom ñëpp bu ñu juddoo rek dañ leen di yóbbu fële ca Mauritanie dem gëstu ji ñu jàng ba. ba ba moqal alxuraan ba nekk ay xaafisul quran ñu doog leen a indiwaat fii si Ndiassane ñoom tamit ñooy développé li nga xamante ne mooy savoir boobu partagé koy génération bi ñu fi fekk génération boobu noonu bu ñu fi jógee ñeneen ñu fiy ñëwaat la même chose lay doon ñi demoon dañuy defaat dañuy defaat comme genre bourse lay doon dem Mauritanie wala ñiy dem Algérie ñiy dem feneen ñu ñëw dajale jàngaat indiwaat ñu ñëw yaatal ko jox ko jox ko ñi nga xamante ne ñoo nekk Ndiassane amuñu occasion wu génn donc Ndiassane moom xanaa kuñ ne rasulillahi sallallahu alayhi wa mooy sa maam kon amoo leneen loo lu la war a ñor lu dul gëstu jàng ak ak ak liggéey ak jaamu yàlla donc si loolu daal lañ nekkoon ñoom. naka nga gisee relation bi waa Ndiassane di entretenir ak outre-mer maanaam yeneen dëkk yi ndaxte ñëpp xam nañ ne waa Ndiassane xam nañ leen ci àdduna gi yëpp. Mm-hmm. lan nga gisee relation yooyu. waaw relation boobu nag dafa spécial. ndax euh, Cheikhou Kounta euh, dafa am loo xamante ne tey ñun dañ ñoo baaxuwul di wax ci côté karaama ñun taalibe yi waaye peut-être lu ñu ci mën a résumer daal mooy baatin la baatin googu nag Cheikh Mouhamadou Kounta yi ba mu ñëwee Njaasaan ba sanc ko ba toog fi def na fi 40 ans mosul génn Njaasaan waaye nag lépp fekk na ko fi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci boori euh, Afrique si sous région bi su ñu suñuy mbokk dëkkandoo lu ci mel ni Mali Haute-Volta Guinée ak yeneen yi réew donc ñoom ñëpp dañuy jékki saay rek ñu jékki saay rek gis leen ñu ñëw bëri na si taalibeem yu bëri yoo xamante ne mosu leen woo téléphone xamu leen fenn dañoo tëdd nelaw gént Cheikh Bou Kounta mu ne leen fekk si leen ma Sénégal ñu doxee Mali ba Sénégal am na tissu bu ñuy woowee ñaxas Baay Faal di ko sol Cheikh bu Kounta taalibeem bokk na si njëkk a sol njaxas xam nga la moo ko waral maanaam ñoom dañ daan jógee fa ñu fa ñu dëkk di dox ba fii dañuy dox dox dox dox ba seen yére xotteeku ñu ñëw takkaat ñëwaat beneen partie bu fekkee fii xotteeku ñu dox dox dox dox ba noonu noonu noonu noonu dañuy mujj àgg rek gis ne yëre bi sax dafa mujj changé mais dara jarul dara warul leen ko lu dul tarbiyu ak topp ki nga xamante ne gis nañ ko te xamuñu kan la mais faaw ñu découvrir ki kan la te bu ñu ñëwee dañuy ñëw jàkkaarloog naar bi rek am na ñoo xamante ne dañuy mujj jaare noonu xëm bu ñu ximeli ko si lañ naan mu ngi nii karamoxo mu ngi nii kii lañ gis si gént bi intact donc loolu moo waraloon su région bi ñu dem ba am accès fii si Ndiassane donc léegi nag temps bi day dem. siècle yi day changé donc njabootu njaboot yooyu noonu nga xamante ne seen seen maam ak seen baay yi daan nañ jógee fële ne leen te te te te Cheikh Bou Kounta indi leen fii spécialement donc ñoom tamit dañuy dundalaat li nga xamante ne moom mooy moom mooy kii boobu noonu euh, doxalin boobu noonu dañuy ñëw di ziar si di indi li nga xamante ne moom mooy seen liggéey ak commerce bi ñuy def di ko indi pour di góorgóorlu ci liggéey boobu noonu loolu moo waral nag mu am. li nga xamante ne moom mooy unité africain Cheikh Bou Kounta dafa bokk ci ñi nga xamante ne tey renforcer nañu unité africaine bu ñu demee tey ba ñu naan UA ah ngay dégg neppat ah intégration africaine maam Cheikh Bou Kounta dafa teel a dajale fii ci Sénégal mu def ko sommet donte lu nekkul sommet de l'Union africaine mais maam Cheikh bu teel na indi Sénégal en particulier Ndiassane mu def ko sommet de unité africaine parce que dafa dajale pays yooyu yëpp ñuy ñëw di sàkku si ñaan waaye di sàkku leeru ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Mouhamadul Kounti. léegi noo gisee li ñuy wax naan tabala la xiin la nit ñi di ko werante naka nga gisee débat boobu noonu. waaw mooy li ma la wax sànq rek Cheikh Abdou Khadre Jelaani ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu créé tarixa bi bu mu ñëwee nekk ci tarixa bi dafa am lu am solo lu mu ci wax dafa ne tariqatu naa mabniyatu laaleel kitaabi wa sunna te tabala sunna la. ndax li nga xamante ne moom moo teeru woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy junjum yi nga xamante ne moom lañ teeru woon yonente bi sallallahu alayhi wa bu ko seeni sët jëlee di ko utiliser di ko tëgg te donc loolu noonu lu dagan la waaye nag doo ci rax dara ndax boo jëlee sabar boole ko tabala yàq nga ko sabar dañ koy tëgg ngir ku jigéen ki jaakaarloo ko góor ki di fecc alors que tabala dañ koo tëgg ngir yow buñ ko dóoree sa xel di dem ci yàlla ndax tabala dafay faj ñu bëri dañuy gis ñuy tëgg tabala tabala secret la am na ñoo xamante ne comme fële ca Sédhiou euh, jamono maam Cheikh Amadou Amatul Kunti yi muy taawu Cheikh Albekaay dañ daan toog guddi ajuma di tëgg di tëgg jëkki saay rek gis gis ñi nga xamante ne dañoo am jinne da leen a dab wala rab da leen a dab lu ñuy dóor tabala bi ñoom ñuy ñu ñuy daanu te foofu la ñuy jaaree di wér ba faw donc tabala dafay faj. tabala du loo xamante ne dañuy ñëw rek tëgg ko yóbbu ko ci gaaw la wala quelque chose mu ñëw changé ko nii nii déedéet secret la. ba si fii Njaasaan am na am na am na am na am na kër goo xamante ne ñu bëri bu ñu daan tam di di defari tabala dañuy dem ba ci kër googu ndax sekkere la donc du loo xamante ne dañ koy caaxaane moo tax dañuy dañuy dañuy dañuy dellu relancer rek ci li nga xamante ne moom la porte parole wax ci mbirum tabala mooy Njaasaan ku fi ñëw na indi tabala waaye bul fi indi xiin bul fi indi sabar ndax loolu bokkul ci suñu aada bokkul suñuy cosaan tabala lañu xam xamuñu leneen ku fi indi leneen lu bokkut ak tabala baa nga indi fi clavier wala cung comité d'organisation bi dafa chargé tey ren euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy soldaaru borom Ndiassane yi ak ñi nga xamante ne ñoo yor wàllum justice ñuy ministère de l'intérieur dañ see jël ay précautions yu am solo mooy képp ku ñu gis nga yor matériel yooyu nga xam ne bokkul ak tabal dañuy ñëw nangu ko fokkati ko bu jëree nga. nga perte ko di nga ko perte ndax dëkk bi jaral nañu ko te duñu ñu toog mukk ci suñuy kër suñu wetu sëriñ ñu gis ñeneen di fi indi yeneen matériel yu bokkul ak tabala donc ñu ngi lancé appel boobu noonu di leen wax ne ngeen bàyyi xel ci matériel yi ngeen di indi na indi tabala waaye bu leen fi indi sabar bu leen fi indi xiin bu leen fi indi cung ñi may la nga tàggatoo ak suñu mbokku téléspectateurs yi. waaw di leen wax ne rek ñu ngi leen di xaar fii seen kër la di Ndiassane euh, ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen ñëw comité d'organisation bi pare na organiser nañ li ñuy organiser dispositif yi tegu na envoyé nañ lettre yëpp ñu ngi ci gërëm ki nga xamante ne moom mooy président comité d' organisation Gamou Ndiassane muy Cheikh Al Khalifa Ould Mamadou Abdallah wul di Cheikh Sidi Ali wul di Cheikh Mouhamadul Kunti waaye di nuyu coordonnateur am di Alaaji Mamadou wul di Cheikh Sidi Maxtaarul Kunti wul di Cheikh Sidi Maxtaarul Kunti wul di Cheikh Mouhamadul Kunti mi nga xamante ne moom mooy coordonnateur u xalifatul am li tariqatil qadriya di nuyu tamit njabootam gépp ndax ñoom ñoo ñu jàppale ci liggéey bi yombalal ñu ko ndax góoru yàlla gi fi tëdd muy Cheikh Mouhamadul Kunti ndax moom mooy Cheikh Sidi Maxtaar moom mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te moom mooy Cheikh Abdul Qadir Jeylaani moom dafa ñëw ne bu ma toogee bu mu toogee ba léegi lenn la wax mooy lépp lu ñëw na ngeen ko jël yaatalaat ko njaboot gi te donc dañ nañ wax naan ne xilaafa gi moom macha allah dañuy sant yàlla rek euh, ñu gën ñoo ñaanal. gën ñoo ñaanalal suñu xalifa bi yàlla suñu borom yàggal ko fi lool lool lool lool lool lool ndax gëm nañ ne moom mooy abul abul zuriyati li li li li li li li li jaddina Cheikh Abi Mouhamadil Kunti donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëmal di gërëm seen directeur ak ak ak képp ku nekk ci chaîne bi rek di gërëm la coordonnateur de la cellule communication ak le président mii di Ousmane Gueye monsieur le maire donc ñu ngi leen di jaajëfal lu ci dëng rek ñu xam ne suñu ñàkk am xam-xam la rek waaye rek ngeen xam ne ci barke ki nga xamante ne moom moo tax ñu koy def muy Cheikh bu Mouhamadul Kunti ak yàlla subhanahu wa taala jërëjëf. ñu ngi leen di jaajëfal tey jii ñu ngi ñëwoon tey jii ak suñu sëriñ bi toog ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ci seen taxawaay ak seen teewaay ci suñu chaîne Thiès 24.